bu fadailuhu ay ngëneelam moom njàpp mawdiun béréb taahirun bu di aji làpp béréb bu làpp la ñu sopp jàppe ndax njàpp jaamu yàlla la jaamu yàlla ci béréb bu làpp wa qillatul maay ak néewal ndox ma bilaa xaddin ci lu dul dayal nag waxuñu lu wax ci douche yeeg yooyu.
waaw kooku de soppuñu ko bu fekkee par contrainte maanaam nit ki daal daf ko def ci ñàkk pexeem nga xam ne ñàkk pexe la waaye bu fekkee ne mën na génn ci biti jàpp moom lañ sopp ñu génn ci biti jàpp mu ne kala xus yi naka noonu cangaay itam léegi moom léegi wa tayammunu a'daa'i ak ndey joor mu cër yi toujours ngay jiite rek ndey joor te te wa inaay ak ndab lay mu féetale bu dee ndab lu ubbiku mu féete si wetu ndey joor mooy il faut ci xaar ndee ubbeef na ko bañ a nekk lu mel ne satara du lu nekk ne mel ne aset nga xam ne nga tànk ni sa ndey joor moom booba doon ak tàmbalee bu mu xaddami raasi yi ci li ñu jiitali boppam ci waxtu masaa tàmbalee fii mu dellu si kon bu tàmbalee fee nekk itam dellu si wàcc na sunna xam nga ne wachafu xaslihi ak tollante raxas ga bañ koo def benn rek wa tasliisu wala ñetti am ko wala yàlla mu def ar rijlaani ñaari tànk yi moom it lan demeen benn raxas ak ñaar ak ñett ni cër yi ci des rek kazalika naka noonu aw wala mu ko al matlubu li ñu sàkku ci raxas tànk mooy al itqa al inqaaw set ga rek raxas moom set rek moom amul ñetti ndox ak ñaar ak nangam wala yàlla mu tax tukkuraw def na sib rabi atu aji ñeenteel li nga war a raxas ñett yoon nga raxas ñett teg ci beneen dañ koo sib aw tub naaw wala def koo tere dafa dafa dafa araam xilaafun am nañ ci wute wa naka noonu lañ ciy limaale tartibu sunanihi toftale sunne yi raxas sa loxo teg ci galax ndiko teg ci sarax ndiko teg ci fiiru ila axiri aw ma afraidihi wala ñu di ko jëf mu ànd ak farata yi di ki delloo ma sax njàpp nga xam ne sunne la ñu dugal ko ci biir farata yi wa siwaakun ak soccoog sa baaraam nga way ak siwaaku ak soccu ci njàpp rek wa imbi asbayi doonte sa baaraam la woon itam mu ne naka noonu ñu ko soppee te salaati naka ngir julli ba odat boo xam ne sori na min hub ca njàpp ma nga dem defaat ko nga soccu bala ngay julli wa tasmiyatun ak bismillah ci njàpp waaye am na wuute de wa tushraw def na yoonal ko moom bismillahi fii xuslin ci cangu ci cangaay wa tey mu min ak boo dee tiim wa aklin booy lekk wax bismillahi yoonal nañ ko wa surbin booy naan wax nañ ko wa zakaatin booy rendi waru koo bi dàbbatin booy war fas wala gëléem wala nag wala ngay dugg ci oto wa safinatin wala ngay dugg ci gaalu ndox wala gaal guy naaw wa du xoolin ak dugg moom di di ak safaanam te mooy génn li man zilin ñeel kër ngay dugg ci kër wala ngay génn yoonal nañu nga ne bismillahi de boo ko waccee day wacc am nga bàkkaar wacc nga lu ñu diglee wa masjidin wala ngay dugg ci jàkka wa lubsin wala ngay sol yére donte dàll la woon itam yoonal nañu nga ne bismillahi wa xalqi baabin ngay ubbunt wa itfa misbaax ngay fay làmp yooyu yëpp war nga ne bismillahi wat un laal wa suudi xatibin yéegu xatib bi min barab bi mu yéeg ci kaw min barab mooy bismillah wa tax miinu maytin bu ñuy gëmmal néew xamaas lañ koy wax walax din wala ñu di ko dugal ci bàmmeel bi yépp day sopp nañu bismillah ñun kii digle nañ ko yoonal nañ ko wala yu wala tund bu waaye soppeefu ko soofee soppeeful itaalatul xurrati guddali weex weex maanaam ngay jàpp fii lañ ko yemale raxas ba fii. mu ni daal kon soppeefu ko wa mas ko ràq ba si naka noonu masaa sa baat nga masaa bu mu kii nga ak ba ci baat bi.
ma ne foofu amuñu yenn wax amuñu yenn dañ koo sopp am na waaye xadis bu doy la.
xadis bu doy
li may wax gaa yi ñu ne leen gis nga dañuy jàpp xadis rek.
waaw te xamuñu dem ma xam ñu dem demee même bu xadis bu wóoree am na xadis bu wóor ba noppi te jëfee duñ ko lu tax beneen xadis dafa ñëw gannaaw am indi loola wala waaw ay circonstance rek taxoon ñu di ko wax bu teg loolu bu dee même alquran sidna Umar al moo ànd ak kuréel bu jóg dindi woon na ko nee na booba lislaam dafa ñëwoon doole di neex laa di ko lislaam léegi lislaam am na doole sama du mu ànd ak kuréel te loolu alquran la waaye teewul ñu dindi ko teg fee ndax ci kaw déggam waaw woobil woobil munaasib maanaam ci loolu la wax ci wàllu xadis xadis boobu ñuy wax ci wàllu naan xaw ma yàpp gëleem toj njàpp yi waaw yu mel noonu waaw dafa am boobu ñooñu itam dafa am ñoo xam ne xam nga xadis yi itam ni ma ko waxee xadis bii dana wér jot ñii te ñuy jotuñu wala mu jotee ñii ci yoon woo xam ne dana am sikki sàkk dootu du ko gëm comme imam Malik ci taqbirul yadi xam nga xadis yi ñu ci solo yëpp weddi na ko moom la ma waaw waaye même ci biir ngërëm mi mujtahid muqayyad yi ci nekk yëpp wute nañu ak moom wute nañ ci ak moom kon d' accord nañ ci comme yeneen ngir yi comme imaamu Shafi imam Abu Hanifa imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp nee ñu amul ay dara ñëw ci imaamu Ahmad dafa ne bu fekkee ne ku ñu yaakaar ngëneelam la nga xam ne ngëneelal diine la islam dara nekku ci waaye bu dee ngëneelal àdduna mel nekk boor wala borom alal nga def ko sib nañ ko sib moom sib na ko imaam Malik moom it néewul sharia sib na ko moom ci boppam moo ko sib ngir nee na day war a rëy ak gis sa bopp ak yëkkati ko comme Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom itam loolu te moom it daawu ko bañ maasale am na jamono yu mu ko daan nangu am na ñu ko daan am na ñu mu ko daan nangu am na ñu mu ko daan bañal Tidiane yi nag yooyu yëpp seetuñu ko ci comme dañu dañu dañu garaawal ko mu rëy dafa am nag dégg nga xadis yu bari yuñ ci solo yoo xam ne imam Malik daf ko weddi maanaam daal weddi bi ca ña ñam ko jëlee ci ñoom ñoo ko dul doy parce que imam Malik dafa am charte boppam yoo xam ne du ñu nangoo xadis ci nit ku baax koo xam ne koo xam ne imam Malik ci boppam moo ko tëral noonu Malik juróom benni kees yu fees del ak xadis gas na ko suuf jàng na na mu wàtta ñeent fukki at ñoo xam ne toujours ak mu ne muy ciy di wàcc ci Muwatta waaw ba mu ba nga xam ne mën ngaa am ñeent fukki Muwatta yoo xam ne dañuy wuute ñaari nusxa rek ci mu ci imposé moom la am benn Muhammad ibn Hasan bi ci des benn Andalusi moom tuddati ñaar yooyu ñoo fi mu ci nekk
xadis boobu maanaam ci bi ma la wax léegi ci wàllu kii bi la wàllu wàllu lekk leen bi waaw lekk yàpp ko waaw lekk leen waaw moom xadis boobu ndax fi mu toll nii loolu moom jàpp nañ ni léegi de moom du ayoon ay circonstances moo ko doon xam
gis nga loolu dafa dafa xaw a parce reer que man moo wax tax dëgg tëgg ma soo bët waaye nit daal moo ko nga def muy da nga ko gis ci fii ba bàyyi sa ban engrais da nga ko gis fii waaw waa xëy na lax yi da nga ko gis fii ah waaw xam nga dañ dafa reeloo dafa reeloo dafa reeloo xam nga yàpp gëléem bi rek dafa dafa niin dana am kii yoo xam ne daal maanaam rek xaw ma seen xaw ma
boo ci ëppalee waaw xam nga loolu bañ nekkee kooku bi jàng waaw bañ nekkee kooku bi jàng xale yi benn seen mbayti ba faal benn gëléemam damm mu mu sax ko dongee foofa xale yi ay taaseen bi dégg nga yaa ngi muy sax ndox ndax dafa dafa kii dafa neen dafa bari kii diw bi ñu toog ba pare xale yi fu ñu tëdd mu yàqu fu ñu toog mu yàqu
dégg nga muy daal baabu suudu xaqi bi ak yéeg ak xutba ji mooy imam ji daal muy yéeg min baram ci commune ba ba yoonam ne mu ne bismillahi tax mi ko tax wees woon wala xadihi daal di tax itaanatul xurra wala tul dabu deful sopp su deful itaanatul xurra ci guddal ay weex weex wa mas fa raqabati ak masa baat wa tark masil aadaay sopp ñu itam bañ a masa ay jër nga ne man daal moo xam sarbet bu ma jàppee damay bàyyi ci tooyaay bi rek ma julli ndax moom lañ sopp rek njàpp mu tooy mu julli fekk na ñàkk xam lañ ci jublu rek njàpp mu mu bees rek lañ ci jublu ba tax ñoo ne nag ne njàpp mu tooy yi kileem tuyaabaam ju bare ak julleem ni mu bare tuyaaba ba tax ñu bañ ko masa pour bëgg muy tooy ñàkk dégg la ba tax ñu ne sopp nañu nga bañ koo fonk
mu ne kooku nag moom la dàq fii ne kenn sopp ko kenn sopp ko waaw sopp ñu bañee masa ay cër boo jàpp loolu way sàkk fekkee ne sikki sàkk na fii saalisatin ci aji ñetteel fa fii karaahatiha mi ci ci béeram wanat baha wala cofeelam xawlaani am nañu si wax waaw mu ne xam nga mu ne ba tënk ko dara ci loolu tënk ko dara ci loolu tënk ko dara ci loolu tënk ko dara ci loolu tënk ko dara ci loolu waaw da nga jàpp xam nga ñett ñi la ñu yoonal bu njëkk bi ñu ne farata la nga rangin bi ñaareel bi sunna bu fekkee ne ñi ko jiitu yëpp maxle na bu ñetteel bi di sunna xam nga ñetti ñaango ñetteel ñaango léegi nag ci ñetteel ji dafa sikki sàkka ndax raxas bii mu raxas mu ñetteel yoon la wala bii mu raxas ñaar yoon lu lekk la kon desee ne ko beneen yoon wala ñetteel ñett ñett ñi daal la sikk ñetteel bi la sikk xam na ne raxas na benn yoon bu wóor na ko ñaareel bi wóor na ko ñetteel bi nag ndax mu xamul mu sikki sàkk ndax raxas na ko wala raxasu ko mooy wa in sàkka ni mu sikki sàkk dafay saalisati ci ak ñetteel mais fa fii karaha karahatiha musique ci biiram pour mu raxasaat ndax kon day nekk ñeent te kenn jëlewu ko fenn toxal fenn ci kii ci lislaam wan war bi daa war a sopp nañ ko ndax mu dikkee comme dafa sikki sàkk ñetteel nga fi mel ne amul kon ñaar ñee wóor ne woon ci julli te kon war naa euh, raxas kon benn bi mën na nekk bu nekkoon ñeenteel itam ndax guddal julli da ngay indi li nga sikki sàkk da nga koy wax ci indiwaat ko ñu ne waaye nag wuute na ndax bu dee julli da nga sujjoot ba'da salaam te fii amul sujjoot wala nii ne wala nee xaw laa dem si ñaareel xaaral wax nag ku wax
Nasir yi.
xaaral wax ne Maaziri mu nekk chàkk yi naka noonu la sikkee fi saw mi yow mi arafata ci woor bisu arafa ba xel huwa ndax moom al iid mooy bisu iid ba xam nga yow arafa araama tere nañu woor ko léegi ah iid iid tere nañu woor ko araamal nañu ko woor léegi nag mu ne ndax yow ma arafa la suba yow ma arafa la te kon ma woor wala suba kaay dëgg dëgg ak kii la ne tabaski la te kon araam la mu ne noonu la demee pour mu woor ko dana am xa- xa- xarar ci woor iid te kon dana araam moom mi mu ne ndax kon noonu la dañ koy def ne euh, raxasu ñetteel bi mu sikki sàkka ndax bu woo bu raxasatee muy ñeenteel te ñeenteel kenn jëlewu ko fenn si biir si nañ ko waxoon nañ ko nekk fii itam noonu wala moom kay melul noonu ndax yow ma arafa moom bu ko sikki sàkkaa yow ma arafa du farata te lu dul farata te mu nar koo yóbbu ci lu araam te mooy woor bisu iid te ñu tere ko day bàyyi rek yemuñu kii ne ay ndax nan la mel ñaar ñooñu mu ne wuute nañu kon nu taxaw ba moom